j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais faire bien. di nuyu di leen sagal ci euh, am contentement jàkkaarloo ak yéen fii ci Lougaré TV euh, di leen wax bienvenue dans votre émission 100% freestyle alors sans plus tard sans plus tarder damay daal di nuyu ki nga xamante ne mooy sama invité tey Taylor maa ngi lay nuyu. maa lay fay Mbaya di di fay Sénégal yëpp di nuyu ñëpp di bëggee waa Sàmm Suuf fàttewuma kenn bëggee waa gang bi respect. alors tey nag dama am invité boo xamante ni macha allah talent rek koy wax si moom la fekk baax alors Taylor ñu bëggoon a xam tey jii nii bëggoon a xam euh, turu Taylor bi fan la jóge ak kan mooy Taylor. ah Taylor moom rappeur la rappeur bu nekk géejawaay màgg géejawaay xam nga rappeur la maa ngi commencé musique diggante 2013 2014 sama premier son mu ngi tudd El Capo xam nga. boobu laay wax bi back in the day challenge bi back in lu si topp gars yi xam nañ ko noonu la fa demee jaamante bi diggante Guédiawaye ak Sicap de passage baa ngi nuyu waa Sicap Liberté 5 bañ laal bigam ok Taylor comme ni nga ko waxee sànq yaa ngi ni sa première single yaa ngi ko tuddee El Capo te bu ñu xoolee gis nañu sa ñaari single yoo xamante ne mu ngi daw ci YouTube bi benn bi yaa ngi ko tuddee El Capo euh, bi ci des bëgg sama bopp ñu décortiquer tuuti ci euh, kii pourquoi El Capo lu mu signifié. El Capo boo déggee El Capo sa sa xel dafay dem si Guzmán c'est-à-dire que boobu noonu. tudd Guzman sant Guzman moom mooy tudd moom mooy El Capo boo xoolee histoire am xam nga am na si ay problème duggu na jël génnaan na ñi naan baron la woon ñi naan de te man dama xool par rapport ak euh, samay moroomu rappeur boo xoolee ak samay moroomu rappeur man dama jàppee ni man maay seen Capo moo tax mu tuddee son bi El Capo. kon yow par exemple yow yaay Guzman. voilà maa El Chapo Guzman El Chapo Guzman big sama gars léegi bëgg sama bopp. bëgg sama bopp sama bopp tamit euh, ñu bari boo boo dégloo son bi su ma nee bëgg sama bopp da nga naan non saa waay est-ce que nekkul lu égoïste lay woy parce que c'est trop personnel sama bopp laay woy mais demeewul noonu que boo déggee sama bëgg sama bopp maa ngi naan si ak maa bëgg sama bopp sama bopp sama gars sama gars sama mbokk ak maa bëgg sama bopp c'est-à-dire que man su ma nee bëgg naa sama bopp mooy bëgg naa la yow. te su ma nee bëgg naa la mooy bëgg naa samay mbokk su ma nee bëgg naa samay mbokk mooy bëgg naa samay gaañ loolu rek lay signifié ah. alors El Capo comment dirais-je Taylor mhm. euh, dafa am ay yenn rappeurs yoo xamante ne ñu ngi fii Guédiawaye sam mais dañuy wax tout le temps El Capo dafa bëri problème dafa bëgg ay clashante genre mhm. loolu mooy sa problème ak clash dañoo bàyyi booy booy ñu may clavier non du question de bëgg clashante du question dara xam nga ku nekk ak noo man lu may si hip hop dama am ko man boo xoolee freestyle la la la la commencé moo tax ma bëgg hip hop moo tax ma bëgg rap ay jël naa ay ay concours freestyle muy lycée muy feneen ak feneen lycée Limamoulaye bi moo jàngee jël naa ko concours freestyle yàgg naa boxe ay concours freestyle yenn rapport underground yi mbapat bu ma xoolee deen ma xam. léegi xale yi ngay cokkaas nii di kii loolu pour la la. non du question da xale yi xale yi public bi ñoo bëgg loolu boo xoolee benn façon comme son El Capo bi rek boo xoolee bu ma ko bu ma ko defee am na si yenn paroles yoo xam ne mën na nga ne paroles yi c'est un peu. du xawna na ëpp mais bon l'essentiel mooy euh, mélomane yi ñu koy déglu c'est ça public bi ñoo bëgg loolu ñoo bëgg façon son boobu ñoo bëgg drill ñoo bëgg kuy rabu hardcore rabu dëgër bi hmm. loolu la motax ma jox leen ko rek ah du leneen d'accord bu ñu déggee sax yaay naan da nga mbapat da nga rampéci rab bi mm-hmm. fan ak fan nga jaar instant bi est-ce que Taylor mu ngi si label ak Taylor moom kan la engagé wu pour liggéey instant bi waaw voilà nag ça va faire de un euh, peu dire euh, deux ans voilà dama xawon def islam baye parce que dama ko bolé jang damay jang ta xam ak voilà quoi dama don jang ak ak situation galé jang mo nekkon prioritaire mais sans bien alhamdoulillah leg ma paré sama jang ma ngi université tout ça amone donc j'ai le temps que me amat musique bi dilat sama temps les cas musique parce que lo xamné amour la ci si man bëgg naa ko moo ne sama xol te macha allah du man maa wax mais gars yi neen am naa talent bi même bu dee tuuti. Mm-hmm. ak même bu nekkee benn nit moo la bëgg mais ñoon ko koo ko bëgg ma mooy tax man du ma a bàyyi hip hop parce que am na ñu may déggee noonu la fa demee. kay la wax yow depuis nga dugg si hip hop bi est que yaa ngi si gis amélioration. voilà amé amélioration benn si ban. mu ci amélioré comme say yi ngay def par rapport ak avant bi ngay a door. xam nga nit ku nekk booy doog a door ñii dañuy kii ñii di la reetaan est-ce que mu ngi am ay euh, mu ngi am mu ngi amélioré par rapport ak avant. mu ngi amélioré bu baax si côté lyrics si côté lépp parce que comme li ma lay wax rek première son bu ma génnee El Capo bu ma ko génnee ñu bari ñoo ngi wax daal non teeloor booy day saaga.

Taylor ñu wax tuuti ci freestyle parce que sànq say wax ne nga yow da ngaa rampé te da ngay da ngay def freestyle ba nga dugg am ci ay concours yoo nekkoon sax ci freestyle ba da ko da ngaa remporté prix yi. donc ñu gis ne freestyle tey jii nii génération bu mujj bi yi nga xamante ne ñu ngi dugg ci rap.

pour man rappeur sénégalais yi nga ne yow rappeur nga yow déglu euh, Gaston déglu déglu déglu euh, Daara ji déglu xamoo kuy Maxi Crazy déglu woo euh, Karim Xurum Xaq déglu woo seen kumpa. bu dëgër bi bu dëgër bi la ñuy def déglu woo underground. donc say lyrics mel noonu say lyrics oyof. Mm-hmm. mais ñooñu noonu rek xam nga boo leen dégloo pour man doo di nga di nga di bindee ñeneen ñi quoi. xam nga voilà c'est ça parce que ku nekk tamit ak ñu ngay ñu ngay loo dugal si rab mais man boo xoolee ñun ñun laa doon déglu man Gaston laa doon déglu Max Crazy Seck on the ground non damay jéem rek kenn ah, dañuy laatiriser mu indil ñu mu indil ñu euh, bi ñu xool yow nan doomu ne comme ñooñu nga doon déglu te ñooñu moom macha allah bu fekkee freestyle rek ak hardcore rab bu dëgër ba ko seetlu ma ay dañ la bàyyi nga dem tuuti instead of saying niggas, um, fii ñu fi gën a tële ah asey fii ñu fi gën a tële ah asey les giri asey les giri Sénégal Dakar Guédiawaye Darou Khane histoire bu riche comme ndar ndar fu ñu jaar baan roy caakin bii PA ba Colobane Colobane banlieue zabe ñu musa daw tër nañ ba toj bépp takusaan takusaan naa nga bañ di dem dëgg ma doon jéem a kar encaissé balugoon bëm Pablo bu mag bi du musa daw sama son law aduna ak li ni nga maa gën a high pilote ci cockpit man sama flow dafa toxique talal sa jam sama hospice hôpital des jëri bu dee ba baax du ngay wër kaay sikap dalal sa xel comme sikap ku mel ni man du ko gisaat gis ki du gisaat laay def h du fekk ay fenkat def ko sa airport parte ñu caaroy 4-4 def sama job lu mu xat-xat sa mani foog sa 4-4 xanaa nga bañ bu dee rab soxlaw ma a tax ma rab foog bénévole le virement bi ñëw sama téléphone tamit sama mani boobu bañee ma frigol I take it for real. That's that I said from time to hit the mom. Gang, gang, gang, for real. Alright? yow tural bi. allo Taylor. respect. ñoo ngi déggandoo mi ngi noonu kon xale bi lii la joxe. loolu lu taw la rek. lii la avant avant avant émission bi jeexagul. waa dëgg la loolu am na jeexagul émission bi alors Taylor ñu dugaat ci question yi. Taylor tay ji nii nga doon artiste bu ndaw nga doon rappeur bu ndaw tey jii kan nga xam nga gis ni ci rappeur yi mag yi gondi na la ko xam te ne yaa ngi koy suivre yaa ngi déglu ay wayam bi jël exemple si moom. Euh, ñu nekk en activité wala. waa si artistes yi mag yi ñoo xam ne sax artistes yi. yi mag yi. ñu bàyyi rap wala ñu nuyu rap ba léegi. ça dépend rek koo xam ne rek yow yaa ngi yaa ngi koy suivre tout le voilà voilà ñu ngi siy suivre bëri na mais bon. man à chaque fois amul kenn koo xamante ni moo la si gën a neex da koy roy tout le temps di xool ay gestam ay jëfinam. Maxi Crazy dama ngay xool lyrics am Maxi Crazy kooku kooku référence la damay xool ay lyrics am parce que pour man suñu dàq bind Sénégal si la bokk bu dàqul bind sax Sénégal parce que macha allah boo déglu ay textes am xam nga déglu ay lyrics am si sound am yi macha allah Maxi Crazy chapeau quoi. ok euh, tey loo ñu ñëw se diggante ak waa Selebe yoon xam nga waa Selebe yoon. Mhm. benn kii bu nekk fii Saam benn troupe la seen diggante ak artistes yi ndaw yéen ñi nga xam ne yéen dëkk Géejawaay plus particulièrement ak Saam yéen seen diggante lan la yéen artistes yi ndaw yi est que ñu ngi tax wala dër bi la. <laughs> non tu sais que xam parfois tamit euh, du ñàkk gars di di lëkkaloo di amante ay paf yu ndaw parce que c'est normal. parce que hip hop pour man comme ni mu koy waxee affaire de koñ la la affaire de sama saay la affaire de géejawaay la affaire la. Ah, waaw sëñ bi yoon de nee na ñoo poñe géejawaay moom nee na ñoo poñe géejawaay am nañ la musique incha allah mu ngi ñëw biir géejawaay ak décembre yi ñun ñëpp dinañ tase concert te ñun doon benn yéegaloo concert xam waaye ngir bégal waa géejawaay xam ñun ñoo fi dëkkandoo ñoo ko bokk mooy loolu quoi garaawul quoi. kon yow daal amoo ci kenn ak ci ñoom ñëpp. non benn la man amu xaaj ak seen ak benn rapport ah. nii leerul de tey lool. parce que tamit am na ku mu invité woon fii nii nee ñoom ñoo teg tànk fii si géej waaye beneen rapport bi ñëw dañ koy écraser ñu ci des côté si côté saa yow tey nga ñëw nga ni. man sax loolu wax ne maa teg tànk si géej waaye. man nag public bi di wax melomaan bi gars yi dañu la sànq ñoo leen ne peut moo teg tànk géej waaye wala tey loolu

bëgg nañ jouer si événement bi am ci bi am ci bopp incha allah xam nga jàppaguñu dal nag xamaguñu ban jour allah lu si mujj. waaw loolu si bi la. après internet bi dinañ leen ko jox dinañ leen jox date bi si décembre bi. à aussi ñoo ngi maa ngi pare sama projet projet bi ngi ñëw yàggatul dara projet mixtape teel seen xam nga poisson suuf projet bi ngi ñëw yàggatul dara d'ici janvier février incha allah.

lu ci si mën a wax mooy projet bi dina ànd ak au minimum 6 titres bu tuddee ba tuuti dina am 6 titres titres yi dina diversifier dina am écotrip dina am ay thèmes. est-ce que dina am ay featuring ci biir est-ce que. featuring si biir nag exemple je ne peux pas te le promettre sincèrement mënuma le promettre que dina am featuring parce que ça moom toogaguñ ci wax toogaguma si waxtaan ak sama staff sama groupe mais featuring ni moom wax waxuñ si dara. ok mais bu la bett tamit ah boo si gisee teel <laughs> a featuring je sais pas kii. ok en parlant de de de, de staff xaw ma léegi est ce que Taylor dafa am si label bu mu nekk Taylor ñan lay liggéeyee lool. bon pour l' instant mun naa ne maa ngi néew ma si benn label mais maa ngi liggéey waa 244 production du nuyaale Mister Bou le conscient de passage du nuyaale Kirama. gars yi maa leen di bëggee sama copain maa ngi koy waale donc respect xam na boppam voilà di nuyu ñëpp ah noonu la fa demee mais pour l'instant nekk ma si signé ma si benn label nekk ma si benn label mais am naa ay bonne volonté yu liggéey ak man.

xam nga sànq loolu laa doon maa la ko si biir wax quoi ba ngay laaj noonu ma ma tere woon ma concentré wu mhm. parce que dama am concert sax ñu invité ma ma a dër dër mais samay parents duñ nangu parce que concert affaire de guddi la musique affaire de guddi la. Mhm. xam nga ma war a parce que bu ma yeewoo war a jàngi. mais comme ni ko waxee en ce maa ngi sant yàlla bu baax naa temps bi moo tax ma ñëw fi pour consacrer ko. si musique instant bi je suis macha allah nice quoi. tey daal pare nga. label bu la soxla woon pare nga pour dem. ah bu kaa quoi musique dafa ay ca kon yéen a ko déggandoo label bu ci pare rek pour liggéey am moom. Taylor nee na pare na nee na nationale internationale pourquoi même pas album nee na na mi ngi noonu. ayca Taylor ñu gis ni si côté freestyle macha allah gars yi ñoo ko wax nag man na wax dëgg fa yàlla peut-être fekk naa la benn yoon si ci ñoom bu nga nekk di dóor affaire yooyu affaire bi nag. xaw na ma marqué dal gis naa la mais à part man dégg naa ay gars yo xamanteni ni ñu ni freestyle da nga top alors. Mm-hmm. freestyle yow nan nga kay comme mots yi nañ lay diké yow freestyle improvisé wala freestyle bo xamanteni ni da ngay kii nan lay diké dal ak ban la ci moo ci sa point fort. te freestyle improvisé tàmb la. foog nga tàmm ko foog nga tel ka def tàmm ko parce que ba chaque fois exemple bu may jox à chaque fois.

improviser bi tuuti parce que man dama bëgg. yaa yaa yaa maa ngi nii di impro maa ngi ceg de micro géej waaye la ma tiito vroom vroom maa ngi daw mel ni météo dawal ko laaj toreto. signal contrat bi rek ñu bëri ko soxla mu nduróog Ouzin Keita bërëm bëri go pepep di jàkkatu rico big flow jàkkaar loolu benn écran maake naan ni meew l'écran deg si nga ma nigga tee dans la cour nigga dégara jàkkaar loolu benn caméra takk seen aari caméra ci a sa maara maa ngi nii toog si benn néeg yaay sama bëkk néeg maa la a soxo soxlu ñëw di jaay gën a néeg ci kaw bitu rab jàkkaar loog sama gaay wax dëgg neexul wante ku wéet xam sa baay yi duñu sonn duñu taay tur mooy la fly maa ngi fly nigga dama xaay dem ba du taay Taylor mooy sa baay nekk si giri na nga wéri duma lekk yàpp dibi dama yàq ñibi tey ma ñëw rek yàq tefi nigga der si teel seen nigga jël ko lugaare non def mu suma ñëwee bit bi teg bi lu kaare gàddu microphone sama flow si kaw dafa kawe ci kaw bitu rap xasaw na ko nu mel ni ni gowe dem dem maa ngi xaay mel ni ku nekk kowe ci kaw bitu rap ba ma toog si sama wet gàddu microphone teel a seen teg lu leer ci kaw bitu rab su ma rabee di gas yow kenn du meer. I check for you the stare stare SS. tàng ñu lii ba ñu songee SS. back back for real. ay caw. wane nga ni nag improvisé bi nga gën a taxaw wan nga ñu ko non non non échantillon la rek non wan nga ñu ko <laughs> wan nga ñu ni improvisé bi nga gën a taxaw macha allah te te comme ni ma la ko waxee woon sànq nag euh, rap kii freestyle improvisé euh, artistes yi ko mën bariwul. dëgg la c'est vrai. bariwul man xaw ma sax le pourquoi même rek émission bi pour nga am invité parce que le fait que boo leen indilee freestyle 100 pour cent freestyle rek nga ñuy rasu. non non lan mooy problème bi au fond laa bëgg a xam man. mais comme lu la wax rek boo ko mbapatul mënoo ko bëri dóor.

génnagul génnagul waaw maa ngi si maa si. ah da nga doon xaar ba Sénégal qualifié nga génne. non boo boo xoolee boo xoolee euh, parce que boo xoolee titre ba léegi waxuma si wax football ah. Hmm. man man si si Sénégal bi maa ngi si delloo euh, suñu révolutionnaire yi suñu maam yu baax ñu fi amoon ñoom Cheikh Amadou Bamba di si di si di Bour Sine Coumba Ndoffène Diouf Maba Diakhou Ba. man ñooñu laa si way. d' accord da nga doon delloo njukkal daal. waaw da nga doon delloo njukkal voilà. d' accord mais boo nee Sénégal point rek man sama xel automatiquement dama jàppoon ni da nga ko doon denc pour Sénégal. dëgg qualifié euh, huitième de finale bi. après nga génne ko genre boobu noonu. léegi lan lay xaar pour génne jom nga ko ba pare. wala loolu mooy xaar pour nga kii ko wala désenvolver ngay xaar mu gën a. si projet hmm. ah! <laughs> hmm. bi lay bokk incha allah alors tam ci projet bi lay bokk tey boobu projet. ñu xóotaat ci projet bi tuuti ñu waxtaanee ci tuuti. bëggoo cee wax nag ah si si xaw ma lan moo tax ngeen ñëwee bu ngeen di waajal projet di nëbbo. ñan ngay liggéeyal ñan ngay liggéey ak ci projet bi yaa ngi ñan yéen a collaborer pour liggéey projet bi. projet bi maa ngi siy liggéeyal ñoom liste bu wax naa la ko sànq. liste bu maa ngi si liggéeyal Kirama. Mm. di si liggéeyal sama mag de passage maa ngi koy nuyu nekk France yes moom mooy jàppale si jàppale si lu bëri moom mooy jàppale si distribution yoo son yi tout ça. di nuyuwaale ji bi sama copain bi toog tamit sama bras droit sama lépp. maa ngi si liggéeyal daal sama staff daal. d'accord ni mu war a liggéeyal. Aïcha ñu bëggoon. Ah, ah, sànq jëluñu sa sa son bi El Capo mais nga nga ñamal ñu ko rek tuuti ah, nga def ko comme genre euh, freestyle ñu ko jox ñu ko parce que son bi mujj ñu koo jël sànq euh, El Capo wala bëgg sa bopp rek boo ñu si mën a may a teer teer teer. waaw am dafa am xorom. am na ay xorom am na ay jafe. <laughs> non bëgguñu xorom bi léegi kon jëlal bëgg sa bopp nga may ñu ci tuuti. bëgg sama bopp tax ma ne haay. mu ñëw wala. mu ñëw ah war na ñëw na ñëw. ok assez bëgg sama bopp tax ma ne lépp lu baaxul ci man man bëgguma bañ bañ bëgg la bunt seetaane ti jékku na dugguma xam sama bopp ma tax ma ne xoolee ma Cheikh Anta Lamine Gueye kuruma Nelson Mandela yaa ngi xeexal ndóor bu ñu loolu dëgg la xam fi may teg sama tànk moo tax ma ne sànq suuf Hinde Gueye moo fi teg tànk. teelu riim kay tànk li nekkatul affaire de koñ mais affaire de gang li nga wit trappi wit trappi wit trappi te gisuma rapport bu dem xëy bari noom télé seen gis nañ fi rapport yi peut-être taatee fm def ko sa brain def ko sa brain ba ba dëkk si wax lu dul deen rapport bu ma dàkk rap amul fenn si dëgg laa dëkk ndigg amul fenn peut-être zap indi e e damay dem kenn du ma tee tee jiwee ba capté de capo de capillo mu sa gis gaynde bi luy les giri bëna laa diggee ba gaanaa gaanaa man dama sib

tur bi dafa hip hop dafa hip hopewul dara dafa xaw a kii daal. xaw a nasaraane quoi waaw Taylor. dafa xaw a nasaraane quoi. comme si kii kooku nu indi Taylor bi pourquoi Taylor. Taylor du ngi indi c'est une histoire parce que tuddee moom sama bopp boo xoolee ba xool gars yi ni mu ni mu ko parce que Wiz ma doon woowee balaa Taylor laay Wiz lañ ma doon comme voilà quoi man dama bokk si yoo xam ne génération Wiz Khalifa lañ ñun. wis Khalifa waaw ñun wis Khalifa lañ moom la ñu màggee moom la ñu déglu wis Khalifa lañ doon chalaat te ba léegi ñoo koy déggee. Mm-hmm. teeloor bi nag dama leen ci wax lépp mais boo xamee si wis Khalifa rek. xam taylor bi fan la jógee foofu laa mën a yem si taylor bi quoi. Ah, tey jii nii yow lan nga dund ci sa carrière loo xam ne marqué na la trop trop ak lan nga dund loo xamante ne ci sa carrière heure boo ko xalaatee dootoo bëgg ci dara si life bi.

mais un jour fam sama ben grand bo xamné mom momu jottu ci hip hop tout ça ñu doon waxtaan vite vite fait mu ne pour ma tok tégal sama projet mo ñeu di ka tégal sama projet ma tok di waxtaan ak mom mais ko ñu ko waxe nit di nga tok mom di waxtaan ak mom fekk ni xelam nekk fi <laughs> légui ma tok di waxtaan ak mom ma xamni ki xelam nekk mais lolu metti ma trop parce que ma nga wax luma amal ful la ci man lu amal fayda ci mom may wax ak mom ma xamni ki il est pas là il est pas présent mais bon digal

maa ngi nuyu ñëpp Liberté 5 Atab respect déggee naa ñëpp waa Kulim Diouf respect. alors yow tamit ñu am contentement bu baax si yow ci sa disponibilité bi ñu la waxee tamit wala man ba tey sax tey laa déggante yow boobu léegi bu mooy def démarche yi ma koy. nuyu bu baax a baax yow moom suñu système la. ak dimbali ma si tur bi. Kayrama. Kayrama ma koy nuyu bu baax a baax ma leen di sant di leen gërëm ñoom tamit ñu doon nit bu baax a baax ñoo tax tamit tey jii nii ba ma jotee si yow. ma leen di bëggee ñoom tamit nit yu baax lañu ma leen di bëgg bu baax a baax. di bëgg waa Thiès. sama yaay sama kii seexe bàyyiwuma kenn waaye tamit di remercier Momo VIP borom ongli ak xefi kenn du moom El borom ndongo daara sopp tamit maa ngi koy bigam bu baax a baax Aïcha avant ñuy euh, ñuy quitter dañ dañuy mayaat but bi rek ñu tàmboo ko ak freestyle 100% freestyle ah. sur Lougaré TV code leen ko fii nii lay amee tous les mercredis. Niggas, for real. Let's get it. Messi du Mbappé team bi du Mbappé team bi Babacar buy jëngal Kapécin bi Kapécin bi waaye Bamba bu waxee kenn du ko dindi du ko dindi. Let's get it. Let's perfect nga di gis perfect dara waru peñaaw donc ne rafet yaa ngi ñuy fexe di gis suñu defet doom da nga fàtte ni ñun dañ di séeréer amagoo succès amagoo mixtape amagoo DJ amagoo dara dee nax li ma doon ma gën a triché maa ban bis dum naka doon tourné amagoo cash daga go store amagoo lay bis amagoo dara dee nax li ma doon ma gën a triché maa ban bis dum naka doon tourné amagoo cash daga go store amagoo lay bis amagoo dara dee nax li ma doon ma gën a triché maa ban bis dum naka doon tourné Let's get it. perfect lépp la def ne rafet c'est perfect aha perfect it's good achieve real nine na twenty six aha xam ngeen di musique du bàtt ci Mbaye Ba Fall bi yëngal bi lay bamba bu waxee kenn du ko dindi ama gën a sax wër na borom dindi ñëpp laay lekk ni yàqu di bi keneen bu ñëwee day yàq ñi bi du tëju tijji de bandi di ko dimateegu si es bi di yàkkate bi ci génne non son sama wasa a vie rabu doon équipe takk nga fii moo xamul del noppi sa budde lay noppi te rabu doon ma tëdd a vie ate bi bi du bëkk si melo di rabu doon feebaru xel dama wéere di juddu rek téere Hop là. Un. C'est perfect. Un. good. C'est perfect. For real. Very nice, hein? Moi Aïcha Mouki. de Daniel. Gros bisous. À la prochaine.